ga makaanal masi ci béréb bu masaa ga nee na bopp bi lépp ngay masaa waaye nag boo ko raxasoon mu wecc masaa ga du tee ñu sib ko nag ndax laa waxan nga masaa dong yem ci ci fa ngaa waroon yem ca fa ñu la yemloo rek kon daal bopp bi dañoo digle ku ko masaa boo ko raxasee nag mu doy ndax kon def nga lañu la defloo woon ba dolli ca far def nga lu ñu sib ndax weesu ga nga weesu masaaga àgg ca raxas ga waxas lu maa raxas la nga xam ne istarxaa yooru na mina shahri ca kawar ga waja ba war na laakin na naqda dafri shaxsin waaye nag firi lettub jëmm maa waja ba warut nee na kawar gi loo ci xam ne daa yooru kawaru sikkim bi ci misaal lu ca yooru la ca yooru na nga ko raxas lu yooru ci kawar gi rek kawaru sikkim bi na nga ko raxas bu fekkee ne ngaa léttu nag muy góor wala muy jigéen du aajo ngay firi létt ya ndegam da ngay jàpp moom bu fekkee kawar ga dëgër na waaye léttaali woo ci geneen kawar gu ci bokkut lu mu dëgër dëgër du aajo wu firi boo ci defee nag lu man ñetti kawar yu ci bokkut nag ba tey bu dëgëree gëng mu aajo woo dindee waaye ñu siw dana doy alxarosa siit ba masuma masa la nga xam ne ala hamatiha nekk na ci kaagum boppam ma min na waxi tëybin ci xeetu gët xuqile bopp xelloof na ko nee na jigéen ni mu baaxoo woon a def ut lu mel ni ab kocc def ci li ñuy wax gonga di ko takk ci boppam ndax de gonga ga day neex xet bëgg boppam neex xet ba tax moo def ab kocc takk ko ci bopp ba daañu ko may bu dee massa boppam mu far masaawaale waaw loolee ca nekk ci ab kocc bu mu ca takk def ca gonga gi demee noonu muy xeeti pat ko leen wala tu jaddidoo bu leen yeesal balal maayu tooy tooy ndox ma isama yen fa du ndeem dafa jeex xabla tamaamil masi ci njëkk matu masaaga nee na boo dee masa bopp bi laata masaag yi àgg nga yëg ne loxo yi tooy gam tooyoon kat fendi na daa mel ni daal tooyatut léegi tu aajoo nga ne kon naa ko tooyalaat door a àggali masaag yi masaa wa maa xaleykum déddi war leen sàmm foofee xaslu xaaidin raxas aji xóot bal li fi nekk innama yelsamu naka dana war rek xaslu zahiri raxas bitti yaram mi nee na nag lépp lu xóot ci biir yaram bi def ab bën bën di la wax nga luqar ci ko di la raxasloob cër rek mbaa sangu farata ci yaram wi itam li feeñ ci yaram rek boo ko raxasee sa jaan wàcc na waaye bu sa yaram defee lu mel ni bën bën bu xóot ci biir bën bën bu xóot ci biir duñu la wax ne la luqar ci biir xóot xóot boobu déedéet wa waajibun aji war la idd xaalukum seenu dugal kaabayin ñaari dojor fii xaslikum ci seenu raxas rëj lay ni ñaari tànk dugën a may ni ci ludul fenn nee na booy raxas ñaari tànk ñi say boo dem bu ëmb ñaari dojare ya tuuti ndax yamale ca kese-kese xëy na mu xaw a jafe ci yow kon day war booy raxas say tànk nga dem bu ëmb dojare ya tuuti wa fi saxiixi cheikhina nekk na ci saxiixub sunu sëriñ albuxaari yi te moo di albuxaari yi alayhi yàlla na doole nekk ci moom wa ridwanul illahi ngërëmal buur bi albaari yi kadi aji bind ni anna nabiya naka yonante bi xaala waxoon na dastifhamin mbir mu muy boroomuk laajte ara ay tuumoo law an na ara ay tuumoo law an na lit tamaami ba ca mat ga boo ko bëggee firi nga ne ara ay tum wax leen ma rek waaye law ànd na ji dana ñëw léegi ñu far ko andi sax nga dégg ara ay tum wax leen ma rek law ànd naxaran doonte naka dex xalaa baa bi ahadikum daa nekk ci buntu kenn ci yéen yaxtasilu dana sangu fii ci moom kulla yawmin ci bépp bis xam sa marratin juróomi yoon maa taquluuna ana lu ngeen di wax fii daalika ci loolee hël yabqaa ndax dana des min badanihi ci yaramam wa shay'un dara mina dana si ci ab dir xaalu ñu wax ko ne ko laa déedéet xaala mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kazalika naka noonee la mislus salawaati kem julli yi wala masalus salawaati misaalum julli yi alxamsiyati juróom day wax nag julli yi juróom ni ñu bare ngëneel mu ne boo dee jàng sahihu buxaari yi da nga ci gis mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa ma sa mel ne kuy laajantu naa leen waaw wax leen ma rek bu fekkoon ne kenn ci yéen ak dex daa nekk ci buntam bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon wax leen ma rek ndax kookee yaramam dana dese dara ci ab tër am déet ñu ne ko déedéet kooku kay yaramam dara ci ab tër du ca des mu ne nag julli juróom noonu la misaaloo boo dee sàmmonteeg ñoom doo dese dara dara ci bàkkaar wa jaa adikk na it fi naqli ca toxal ga ida qaama ida qaama kama ataa nag mu dikkee waman qaama waman qaama huma ñoom ñaar xadisaani ñaari hadis lañu ba tey nee na jëli nañ ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis bu tàmbalee ida qaama ak bu tàmbalee waman qaama te lu ca nekk rek ngëneel la lu jëm ci julli ida qaama moom mooy lee mu wax ne ida qaama dem jóg na alxabdu jaam ba ila salaatil faridati jëm ci julli farata nazara xool allahu yàlla taala kawe na ilayhi jëm ci moom fa yaqul te muy wax ne yaa abdi yow sama jaam bi wa izzati giñ naa ci sama tedd nga wa jalaali ak sama màgg la untiyannaka danaa la jox su'laka sag laaj muy sa aajo wala ahriqu te duma lakk man na it wala uhriqu ci kaw nag nam ñëwee ci addis ba rek jasadaka sa yaram finnaari ci sawara baxda maqaamika ci gannaaw sa taxawaay bi haza bile su ma yaqoolu topp dana wax moom yàlla xazza te na wa jàlla te mu màgg yaa jibrilu uktu bindal li xab di ñeel sama jaam bi bi kulli shaharin ci bépp kawar xalaa jasadihi bu nekk ci yaramam wi xasanatan aw yiw wam xote nga far xan walis ko sittiina juróom benn fukk sayi atan ci ay ñaawteef wa buni te nga tabaxal lëxoo ñeel ko fil jannati ci àjjana madinatan ab dëkk wa anaate man ushafihu danaa ko ràmmuloo yowmal qiyaamati ci bis penc fii sittiina ci juróom benn fukk min ahli bayti yi ci ñooñ ab néegam muy ay bokkam isa xaama ji moom nee na mooy li yonante bi waxan ne bu jaam bi jógee jëm ci jullit farata yàlla da koy xool ne ko ah sama jaam bi waat naa ci saa teet nga ak saag màgg ne luy sa aajo dinaa la ko jox te duma lakk mukk sa yaram wi ci sawara gannaaw taxawaay bii nga taxaw tey di jox farata ji wal di wax nag jibril ne ko sama jaam bii day seetal ni kawar yaramam baree nga bindal ko yiw yu tollu noona te faral ko juróom benn fukki ñaawteef te tabaxal ko ab dëkk ci ajana te kat bu ëllëgee bu bis pencee danaa ko may mu ramm juróom benn fukk ci ay bokkam waman xaama ji nag moom mooy rek liñ yàgg dégg man xaama laylatul qadri imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zambi ku taxaw laylatul qadri ngir gëm yàlla ak ngir sàkku tiyaaba ñu baal ko la mu weesu lépp ci bàkkaar mel ne loolu wax nañ ko itam ci ku naafile naafile weeru koor yi mooy itam noonu tey ñu jéggal la say bàkkaar faslun li ab dog la fi fara idib tayammum yi ci faratay tiim tey bëgg wax nag faratay tiim amma fara idib tayammum yi daal faratay tiim faxaaw juróom ñett la tiim moom daa gàtt waaye daa bari li mupp ay farata awwaluha aji jëkk seen an niyatu mooy yéene ja tiimaa ca la nga xam ne shuriha leeraleef na ko ba ci jëkk mooy yéene da nga yéene dagan loo julli ca tiim ba ca ba nga ne tegg sa ñaari loxo ca la ngay tiime foofu ngay teewloo yéene ji su fekkee amee na janaaba nag mu teewluwaale janaaba ja maanaam bu fekkee sangu farata waroon na ko na teewluwaale yéene loolee ko war a tax a sangu farata te bañ a yéene yéene rek koo xam ne jàpp dong moo ko war su ma saa yi doon topp pàkk tahirun bi aji laab farata ñaareel bi mooy tiime ci pàkk bu laab pàkk bu laab nag mooy tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalul tiim ca ndaxam suuf moo gën ci lépp lu ñuy tiime waaye wépp xeet doj woo xam ne loxol doomi aadama soppiwu ko rek man doju carrière mbaa doju dënnu mbaa doju kew yépp man na caa tiim fawrun aku gaaw ñu koy wax gaaw rek waaye mooy sësale loo def rek ca la ca topp rek ba ba ngay noppi dañu bañ nga tàmbali mel ne raay sa kanam nag di waxtaan ba mu neex la nga bëgg a jàll raay say loxo wa darbatun akub dóor yin taqaddamat boobu jiitu na dañ koy wax dóor rek waaye ab teg lañ jublu teg ba ngay teg say loxo ci la ngay tiimi rek day doon ñaari teg teg bu jëkk ak tegum ñaareel teg bu jëkk ba nag mooy nekk farata nga xam ne ca ngay masa kanam nga wa masun ak masa xad dahara goo xam ne feeñ na lil wacc ci ñeel kanam nga wal ku waxee ni ak ñaari tikku jaree masa kanam gi ba mu daj farata la ba tey masa loxo yi la tàmbalee ca ci baaraam ya ba ca tikku jare ya farata la ndax xam na ngay jàll sax ci masa gi ba ëmb conce yi tuuti waaye nag la tàmbalee tikku jare ya ba ca conce ya moom daañu ko wàññi ca sunne ya wat tisaalun aku jokk bi maa ci la nga xam ne yuuf xalu def na ko def la ñal ko fii maa ci la nga xam ne xaaloo wax nañu ko ba tey tiim bi sës ci la taxan ngay tiim farata la wa fi'luhu aku defam ba'da duxooli waqti ci gannaaw tàbbig waxtu wa laa yasixu du wér xablahoo ci njëkk waxtu wa xalaamaa ci kaw li nga xam ne nuqi la toxaleef na ko bokk na ci faratee tiim bala ngaa tiim fekk waxtu wa jot ba noppi waaye mënesuta tiim te fekk waxtu loola jotagut lii boo ko wàññee ma juróom-ñett yéene muy benn tiime ci la yoon digleku ca tiime muy pàkk bu laab muy ñaar sësale gi loo noppi teg la ca topp muy ñett teg bu njëkk ba ngay teg sa loxo teg bay teg say loxo ci la ngay tiime te muy bu njëkk ba xam ci ngay masaa kanam gi bu ko defee muy ñeent masaa kanam gi muy juróom masaa la tàmbalee baaraam yëpp fa ngay takk montar mu juróom benn tiim bi sës ci la taxoon ngay tiim mu juróom ñaar bu ngay tiim fekk waxtu wa jot ba noppi mu juróom ñett loolu mooy faratay tiim faslun li ab dog la fii sunani yi ci ay sunaam sunanu foo sunaam ya salaasu ñett la ak tartiibu moo di ak toftale toftale tiim bi sunna la loolu mooy nga njëkkee kanam gi mujje loxo yi ndax tiim moom weesuwut kanam ak loxo rek toftale googu nag sunna la tajj diidu ko ak sa yeesal ak darbata dóorin ba yàlla bii bu yow aji xellu ji yeesal dóorin bi mooy yeesal teg ba rek teg bi njëkk ba nga tegan say loxo ci la ngay tiimee masaa sa kanam farata la woon nga bañ cee am nag tegaat beneen teg bu yees nga xam ne ci ngay masaa loxo yi boobu sunna la moo tax mu naa xanaytu jublu naa li lee day ni ñeel yaari loxo ya tegul ñaaral bi ca ngay masaa yaari loxo yi su ma masuma topp masaa la nga xam ne zaada dolliku na xalal ko ay ni ci ñaari tikku jaree mi maaj la nga xam ne xulima xameef na ko masaa ga ngay masaa la tàmbalee tikku jaree ba ëmb conc yi tuuti loola sunna la ko yetti sunna yi mooy toftale ga ak yeesal tegub loxo yi ca la ngay tiime nga xam ne ca ngay masaa ñaari loxo yi ak masaa ga ngay masaa la tàmbalee tikku jaree ba ëmb conc yi tuuti faslun li ab dog la fii nawaqidil wudooy ci way firi njàpp inna nawaqida naka way firi njàpp ala qismay ni nekk nañ ci ñaari xaaj ahdaasin ay toj asbaabin ak ay sabab bi xëyri may nin ci lul fen yi firi njàpp ñaari xaaj la am na ci yoo xam ne ay toj lañu am na ci yoo xam ne dañuy sabab ay toj waaye doonuñu jëmmi ay toj amal lës yi ndaal la nga xam ne yox di suhoo dana ko toj faawun juróom la xus jàppal talaasat ñett min xubulin mu bàyyi ko ci sawukaay wax yi te ñoom al masi yi mooy masi yu wal waddi yu ak waddi yu wal ba wal bawlu ak saw su mas naan topp ñaar te xumaa ñoom ñaar min duburin ñu ngi bàyyi ko ci buntu suuf riixun moo di aw gelaw riixun moo di aw gelawal waxaa itun ak xayta samaawu yëkkatiku na li nga xam ne mooy toj jëmmi njàpp mi juróom la yett yi day bàyyikoo ci bunt bi saw mi génne yaar yi bàyyikoo ci buntu suuf bi fi xayta yi génne yett yi bàyyi ko ci sawukaay moom mooy li ñuy wax saw moom miin nga ko ak li ñuy wax masiw masiw mooy bu fekkee ne góor gi day xalaat jote góor ak jigéen ba ab sawukaayam jóg xëy na ndox mu weex te bañ a far génn ca loolu moo tudd masiw wat yi nag moom ndox mu weex lay doon te far li koy ëpp ak génn nag mooy ko tawatoon ba tane yaramam manki deret wala mu amee sedd wala mu seere ab diir bu yàgg demul ci wana wa mën naa am ku mel noonu bu sawee ba ci mujj ko saw ma li ñuy wax wadd yu ndox mu weex moomu te far daal di génn mbaa mën naa am nag mu dem sax raxas dem bay jàpp mbaa mu jàpp ba noppi mu door a génn yooyu yëpp nag danañ toñ jàpp li toñ jàpp tey génn ci bunt suuf yaar la mooy ngelaw li bàyyi ko ci bunt suuf muy benn ak xëyta ci boppam kon juróom yi mooy yi nga xam ne ñooy toj jëmmi njàpp ma bala ñu ko toj itam day fekk kooka ànd ko wér waaye bu fekkee daa wéré di ba nga xam ne yii nañuy génn ci moom awut aw yoon day génn ka génnaat rek te li ci ëpp noonu la koy def mënu koo takk kon moom dara du ca toj njàpp ma bu ko seedoon ak wéré di moom te daanaka jamono ji ne noonu la koy def mbaa lépp ci jamonoom noonu la koy def rek kon du tojati njàpp ma amal musabbibu daal aji sabab ja fa naw mun mooy nelaw yi sabab jàpp mu toj nag bokk na ca lépp lu ko tàggale sagoom te nelaw ca la bokk ku nelaw dëgg-dëgg day tàggoo sagoom booba faa dikk na daalal mbir mu muy ñeent minal aqsaami ci ay xaaj xam man jëlee ca ka nga xam ne xarafa xam na nelaw mën nga koo def ñeenti xaaj yu bokkut waxad naqadoo firi nañ jàpp ma bi tawi leen ci aji yàgg musqalin yu diñu diisal bi ci jëkk mooy nelaw yi dafa diis ba noppi yàgg boole ci nelaw yu diis mooy nelaw yi jàpp na ko ba nga xam ne bu ñu waxee fi moom kàddu gu xumb du ko dégg li mu yor ci loxoom bu rotee du ko yëg nit mën naa dugg ba génn ba tey du ko yëg loolu nelaw yu diis la bu ci boole yàgg nag benn la na toj njàpp wax ak suufoo safaanam ba aydan ba tey yan xubu dana firi njàpp ma la dañu fa ñoom ñaareel bi mooy nelaw yoo xam ne diis na waaye daa yàggut mooy daa gàtt diir ba yàggut kooku nag moo ba yàgg ñooyemoo rek ñoom ñëpp ñooy toj njàpp su ma xasiirin topp aji gàtt xafa ja jooyeef na lay sa yan xubu du firi njàpp ñetteel bi nag mooy nelaw yoo xam ne daa woyof ba noppi nag bañ a yàgg boole ci mooy daa woyof ba noppi yàggut nelaw yooyeef nag mooy yaa ngi nelaw waaye ku wax fi yow kàddu ko xum nga dégg ko li nga yor bu rotee nga yëg ko ku dugg mbaa mu génn nga yëg ko yu mel noonu nag dagam yàggul boole ci du toñ jàpp ma tey soppuñ ca jàppaat kaak si yi ab safaanam ab safaan nag mooy nelaw yi ci boppam yu woyof la waaye dafa yàgg nag boole ca kooku moom du toj sax njàpp ma waaye daañu sopp mu jàpp moo tax mu teg ci wayun dëbb def na sopp alwudo njàpp min hu ci moom nelaw yoo xam ne woyof na waaye dafa yàgg nag boole ci moom sopp nañ ca jàpp tumata min asbaabiha topp bokk na ci sababi toj ya zawaalu xaqlin dañu xel rëccu xel lañ koy wax waaye mooy dañu xel maanaam saa yoo xam tàggoo naag sagoom rek jamoneem tàggoog sagoom mën na faa def luy toj jàpp te du ko yëg kon nag bu sago si dellusee rek na jàppaat kasaani ki ni ak junoon ak ndof fii maa ci la nga xam ne xaaloo wax nañu ko ak ndof bokk na ci yi taxa tàggoog sago maanaam ni ki say koo xam dafa doon say bu say ma jeexee rek say boo mu jàppaat waxaale wax na malikul malik ne kasaani ki nii al ixma u xëm ba tey xëm ku ko def day tàggoo sagoom bu xam te la jeexee say boo mu jàppaat kultu wax naa ne wa bu chat yi boroomu fengat ci leeri yàlla lëxoo ñal na ko istisnaawun ak seetee yi nga xam ñoo nit yàlla yi léeg-léeg day am leer yu leen di gand ba nga xamee ne daañu dem ba mel ne dañoo xaw a tàggoo sago waaye ñoom nag moom duñ leen boole ci ñi nga xam ne loola day toj seenum jàpp déedéet moo tax mu ne ñooñu dañ leen di seetee mooy ñooñu duñ bokk ci ña war a jàppaat wa mislu si kem yii la arridatu murtat waxee moom arridatu kufrun moo di ak weddi min bax di islaamin ci gannaaw am njullit koo xam dugg na ci lislaam gannaaw bu bu waxee lu ko ca génne mbaa mu def ko fekkan nag mu jàpp suñ ko waaroon ba mu delsiwaat it delsiwaat ca lislaam ja it da nga xasoon na fi jaarale kéefar rek jàppam moom toj na faaw na jàppaat kasaaka naka noonu asukkur mandi maanaam mandi ba tey doonte sax mandi gu dagan la moom mandi gu araam gi ñooye moo moo tax mu teg ci kaana moo xam nekk na minal xalaal tukkee ci aji dagan mis la laban kem am soow aw min xaraamin wala tukkee ci aji araam mis la xabrin kem sàngara faa tani na nga sonni xam-xam mandi moom koo def da ngay tàggoo sago kon nag ku jàppoon ba noppi am lu ko tàggale sagoom ci xeeti mandi yi moo xam la mu jëfandikoo ba mandi day lu araam mel ni sàngara mbaa lu dagan mel ne soow du tee rek su mandi ma jeexee na jàppaat ndax jamono yi mande mën na faa def li te njàpp te du ko yëkk wa nuqi ba firéef na alwudo njàpp ma xam man jële ci ña nga xam ne nabuhoo yeewu nañu bi chekk ci sikki sàkk ga fil xaddisi ci toj ma faltante bi hoo na ngeen yeewu nee na bokk na ci yi nga xam day yàq njàpp mu wër ko ne jàppoon na waaye léegi day sikki sàkk ba xam njàpp moomu toj na wala tojut kooku bu fekkee am xelam baax na du bis bu ne mu dal ko kon bu dee sikki sàkk njàpp ma toj na am tojut dañuy jàpp ne toj na moo gën a wóor bu ko defee mu jàppiwaat waaye bu dee bis bu ne mu dal ko benn yoon nag loolu kon jax-jaxi la say boo rek mu téye mooma njàpp ndax jax-jaxi daa baaxut moom day yàq diine say boo rek bu dee jax-jaxi moom bis bu ne mu dal ko su sikki sàkkaay téye njàpp moom rek bañ ko wàcc wa naqdul udo yi firi njàpp ma yan jël yi dana feeñ an xum jële ci ñoom bi masjid dakarin ci laal sàkkara mu tasilin si aju jokku aydan ba tey bi batt ni kaffin ci biir teng aw bi batt ni usbohin wala ci biir baaraam aw tarafay xima wala seen yaari wàll wala nga ni seen yaari cat ba tey bokk na ci firi njàpp góor gi laal sàkkara su boppam te fekk mu taq ci moom bu daggan dal fee mu laal ko moom du tax njàppam toj bu doon sàkkara si jàmbur tam du tax mu toj te it mu laale ko li xong ci téng li mbaa wetu téng li mbaa li xong ci baaraam yi mbaa wetu baaraam yi waaye bu ko laale woon li li ñuul ci bit téng yi mbaa bit ci baaraam yi kon njàppam du toj wala bi usbuhin ak doonte ci baaraam la saa it bi aji yokku in ahas sa ndem mën naa yëg eh saa sa siwaaw kem yëgu ku bokkut ak moom minal asaabi ca baaraam ya hadaakum yal na leen jubal al ilaahu buur bi doonte baaraam bu yokku la ci juróomi baaraam ya ni ki yàlla da ko bindi maam juróom benni baaraam mbaa juróom ñaari tam juróom benneel mbaa juróom ñaareel ba ndegam mën naa yëg ne ca des nga xam ne bu ca lakkee yëg métit ba boo ko ci kaataa mu yëg ko baaraam yooyu kon mooy ca des ñoo yemoo bu ci laalee sawukaay ba ci nee ñu waxe woon rek njàpp ma dana toj wallam su laal ga yanqudu dana firi la dal axlaami fa xalam ya maanaam góor gi wala jigéen ji kenn ki jàpp ba noppi laal ko ca des mën naa toj am jàppam ci kaw nii ñu koy bëgg a teqalee foofu moom xalaa arbaxati nekk na ci ñeent ak saamin ay xaaj bu fekkoon du woon way moom dañuy wax rek xalaa arbaxati ak saamin waaye na way wee tax faaw nga ne xalaa arbaxatin teqalee ko door ne ak saamin ay xaaj xasdun jublu maxal wuj daañu ànd ak am jublu gi mooy jublu am bànneex la jublu waxoo moom yan xudu dana firi njàpp ma at xan ci lu dog mooy ci lu amul benn werante bi ci jëkk mooy kii laal ba muy laal da caa jublu woon bànneex ba noppi am ca bànneex ba boole ca kooku moom dana firi njàpp ma amul genn werante mooy ba muy laal daal jëmmi laal ga bànneexu la ci jublu woon te am na ca bànneex boole ca walakin waaye xaq suufoo safaanam ba laa yan xudu du firi njàpp ma safaan bi nag mooy jubluwu ci woon bànneex te it amu ko ca waaw ba mu koy laal jubluwu ci woon bànneex te amu ci bànneex boole ci kooku moom du toj njàpp waxa demul xas di ñàkk a jublu ga maxal wuj daañu ànd ak am nga chehra siiwal na naq daxoo firéem nga dawal adhaani waroom xel ya du ko ñetteel nag mooy ba mu koy laal jubluwu ci woon bànneex waaye da caa far am bànneex nag kooku moom du tee njàpp ma toj mooy ñetteel bi mooy jubluwu ko ci woon waaye far na ko ci am waxay suma xasadaha foofu xam ne jublu na ko wala muy jitte amu ko it fal yàlla mën na xam ne ànd na woo doo ahoo naka njàppam ma fukki da ñàkkeef na ko te ko ñeenteel nag mooy ba muy laal da caa jublu woon bànneex amu ci sax bànneex ba waaye naka jekk loola ci jublu woon moom bu xasee jublu bànneex rek moom dal nay toj mu am ko ca ak mu ñàkk ko caa am ñooye moo xam ne kon yent yi noonu lañ koy teqalee saa yu xosee jublu ca laal ga bànneex moom donte amu ko ci it toj na muy benn ba tey bu fekkee laal ga jubluwu ci woon bànneex waaye far na ci am bànneex ba tey toj na bu ci jublu bànneex far ko ci am nag waxaale wuñ ko moom it day toj muy ñett benn rek boo dul toj mooy jëmmi laal ga jubluwu ci woon bànneex te it amu ca bànneex wala sa yun xabu déeful firi njàpp ma bi mas ci duburin ci laal buntu suuf aw masil unsayee ni wala laal yaari waa yàlla fil moo attabari ci lañu xalam laal buntu suuf bi mbaa laal ñaari waa yàlla yi te laalul bantub sawukaay ba loolu du toj njàpp aw mas ci farjin wala laal am pëy laal ab sawukaay li saxirati ñal xale bu jigéen ba allati ba nga xam ne laa tushtaha deful bànneexoo am zaaluha ay moroomam fil millati ci aada ba tey xale bu jigéen boo xam ne ku toll ne moom daa xeesul am ci moom bànneex kooku ko laal doon ci sawukaay bam nga laal it du tax sa njàpp toj walay sa yan taqidu du firik moom njàpp ma bil xay yi ci wàccu wala bi aklikum du caagéenu ci seenu lekk laxmal jazoori yàpp gëleem yaamalaa yéen mbooloo mi jàpp nopp wàccu du tax njàpp ma toj jàpp nopp lekk yàpp gëleem am na addis yu ko indi waaye li ñu sukkandikoo ci yoonu Maalik moom mooy lekk yàpp gëleem du toj njàpp wala xijaamatin du caagéenu nàmpatalu ba tey nàmpatalu bari nañu ko xam mel na ne daa am deret ju dee daa am deret ju yàqu ji génne ci yaram wi am nañu koy def naari ganaar yi dañ ko faral def nàmpatalu googu moom it du toj njàpp ci wax ji gën a wóor ci yoonu Malik wala fas din du caageenu gàjje mel ne ak sadit goo xam ne daa am sikk ñu koy fajtal di ko gàjj moom it ci yoonu Malik du toj njàpp wala xaxatin du caageenu xàqtaay fiihaa ci biiru julli la danaa fi nun musjalan ak lu mu mën di doon te ko firi xàqtaay rek waaye mooy reegu am kàddu maanaam di julli ree reegu am kàddu jëmmi julli ko rek mooy yàqu waaye jëmmi njàpp ma ci bopp du ko tax a toj wala bi masil marati du jaageenu ci laalu jigéen ja alfarja sawukaay ba waxiile waxees na nag ne in aw tafat ndeem lonkal na baaraamam fa tam yulu kon dana jeng lil ihaadati jëm ca baamu njàpp ma jigéen bi jàppee mën a laal ab sawukaayam daa am ñu wax ne ak nu mu ko mën di laale rek njàpp ma tojut jooju wax nag bari nañu ko wax am nañu ne ak nu mu ko mën di daale daal nay toj benn bi nag moom dafa teqale ne bu fekkee da caa lonkal baaraamam mbaa mu ngëb ca dana toj waaye bu fekk bu fekkee lonkalul baaraamam ngëbu ca itam kon du toj jooju wax ak teqale la mooy ñëwoon ci aljawharun nafis faslun di ab dog la fii shuruti salaati ci sarti julli shurutuha ay sartam moom julli toq samu def na leen séddale il xis may ni jëm ci ñaari xaaj wujjoo bi haa sarti waram ga asihati ak sarti wér ga duna may ci lul fen nee na sarti julli dañ koy def ñaari xaaj am na shurutul wujjoo bi am na shurutu sihati sarte yi tax julli war la mooy shurutul wujjoo bi sarte yi tax nag julli ga wér ba duñ la julli loo waat ma tudd shurutu sihati fa shurutuha sartam ya allati ya nga xam ne intamat askanu nañu ilal wujoo bi jëm ci war xam sa juróom lañ sart ya nga xam ne mooy tax jullee war juróom la waxee ñoom islaamul moo di dugg ci lislaam sabata boobu soxna maanaam dugg ci lislaam mooy tax julli war ko ndax bu fekkee dugg ci lislaam am nañu ne julli war na ko ci kaw rek bu ëllëgee daañu ko ci mbugal ci ñàkk gaa julli waaye nag dagam dugg ci lislaam moom bu julli itam du baax ndax faaw dugg ci lislaam mooy sart bay tax julli ga bu ko defee mu baax su ma bulooxun topp ak kàllafe maanaam gone julli war julli waru ko dañ koy digal rek bu amee juróom-ñaari at muy julli te kenn du ko ci dóor yooyu jamono bu bañee bu amee fukki at ñu digal ko julli te bu bañee ñu dóoru ko ndegam dóor yi dana am njariñ waaye daal jàppal ne kàllafe mooy tax julli war waaye gone moom julli waru ko suma xaqalun topp xel ànd ak xel bañ a dof bañ a xëm mbaa say ba waxtu wa jeex mooy tax julli war ko def ñu toll nii suñu suñu xëm mbaa muy say ba xëm ma jeex mbaa say ma jeex dañuy xool des ci waxtu wa bu fekkee ne laab am ci brak xaj na ca julli ga war ko bu fekkee ne laab am ci brak xaju ca kooku julli wàcc na ko ku dof itam diir ba mu dof yépp donte ay ati at la su wéree itam du tax mu war a fay déedéet tax julli waru ko woon ca ba mu ànd sagoon wa duxul waqtin ak tabbi waxtu mana waxtu wa jot moy tax julli war la waaye bu fekkee ne waxtu wa jotut waru la te araam na sax ngay julli te waxtu wa jotut buluuxu daawatil maahi ak jotub wooteb aji far jëkkeefar ar rasuli kadi ab yonante salla yal ndolteet nga alayhi ci moom rabbuna sunu borom wa sallama tem doli ko wóolu wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak ay sahabaam wa hazama te mu màggal ko bokk na ci sart yi tax julli war la nga dégg wooteb yonante bi maanaam dégg ne am na ko yàlla yónni mi woote lislaam waaye koo xam ne nekk nga fa nga nekk di dund ba génn àdduna te yëgoo ne yàlla yebaloon ab yonante muy woote lislaam joo xam ne ambaali na ci biir julli xamoo ci dara ci loolu yow kenn santu la kenn topp la dara nga dégg ba noppi wuy wul rek waaw kay kooku la ñuy wax dara waaye ka nga xam ne moom woote bi yonante bi jotu ko xamu ci dara ci xam doon dundi ba génn àdduna kenn du ko atte ci dara lu may rek xam ne dara waru ko amma shurutu sihati daal sarti wérga allati